waaw aouzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi nuyu mbokki suñu kër fm yëpp premier rajo panafricain basé à Los Angeles ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di nuyu képp koo xamante ne mi ngi ci Cap Sénégal naataange ak képp koo xamante ne mi ngi suivre émission bi ci mboolem àdduna bi ci mboolem xaalama yàlla bi fu ci waay nekk rek ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu président Ablaye Fall di nuyu suñu jigéen bi nga xamante ne mooy Fatou Lo xam ne moo ñu dalal tey ci plateau bi di ko rafetlu bu baax beneen yoon ñu ngi lay nuyu yéen ñëpp. alaikum wa rahmatullahi taala alaikum. mbokki auditeur Mboki auditrice Sunuker FM première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles Le Colo à Cap Sénégal Natangé. la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangé. Du parti en construction président Abdoulaye Fall jiteko ko Akien. teew ci seen plateau sunu kër FM ci seen émission ëttu néegu sëy ñu fas yéene nag ginnaaw ba ñu leen nuyoo auditeur ak auditrice sunu kër FM ak mbokk yi nekk ci panelu Cap Sénégal naataange ñu fas yéene ànd ak suñu ay invité ku ci mel ni sëñ Modou Sène Cap Sénégal naataange Bandia ku ci mel ni soxna Aminata Seck Cap Sénégal naataange Scat Urbam ku ci mel ni sëñ Lamine Ndiaye Cap Sénégal naataange Italie ñu fas yéene waxtaan ak yéen deuxième ci émission bi paase muy xarit ci néegu sëy balaa ñoo dem fenn di wax ci lenn ma nuyoo ak sama ay invité sëñ Mamadou Sène yaa ngi ci plateau suñu kër FM ci ëttu néegu sey ñu ngi lay nuyu di la dalal lu bëree bëri di la laaj lan ngay nuyoo suñu auditeur ak suñu auditrice sunu kër FM. waaw salaamaaleykum ma di leen nuyu yéen ñëpp ko ci nekk sa tour ak ci sa sant di leen ziar. di rafetlu tey ji invitation bi ci émission bi euh, Fatou di euh, rafetlu it ñi nga xamante ne ñoom laay àndal ci waxtaan bi ñu yaakaar rek ne waxtaan bi su yembee dinañ ci am njariñ jël ci naataange mu nekk waxtaan boo xamante ne nag dina ànd ak sutura ñu leen di jaajëfal yéen ñëpp ba ci kanam incha allah. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala sëñ Modou Sène fay nañ la lu bëri bëri ma wëlbatiku nag soxna Aminata Seck. nuyu nañ la di la dalal jàmm ci plateau sunu kër FM ci émission ëttu néegu sëy soxna Aminata lan ngay nuyoo suñu auditeur ak suñu auditrice yi. asalaamaaleykum waa Sénégal naataange cap Sénégal naataange maa ngi leen di siyaare bu baax di siyaare sama naataangoo yi ma bokkal plateau bi Fallou maa lay nuyu bu baax a baax. di la ñaanal euh, bu neex ak émission bu neex di ko ñaanal ñëpp ak ñi ma nekkal maa ngi leen di déglu merci. jërëjëf soxna Aminata Seck ñoo ngi lay fay sëñ Lamine Ndiaye ginnaaw bu ma la nuyoo dalal la jàmm ci plateau. suñu kër fm ci émission ëttu néegu sëy sëñ Lamine dama lay laaj lan ngay nuyoo suñu auditeur ak suñu auditrice balaa ñoo tàmbali suñu émission asalaamualeykum wa rahmatullah Cap Sénégal naataange eh, maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baalu ak di leen baalu ak di ñaan borom bi jéggal ñu ci barke Seydina Muhammad ah di am mbégte ñëwaat ci plateau bi soxna Fatou ah, di la sant di la gërëm di la jaajëfal saa su di la ñaanal aussi tawféex gudd fan wér di ko ñaanal waa groupe bi yépp ah di aussi profito ci occasion bi comme toujours eh, di gërëm suñu président Abdoulaye Fall ak. staffam ak groupam ah moom mi nga xam ne peut-être bu ñu amee tey opportunité toog fii di waxtaan ba nit ñi di ñu déglu ci moom la di ko ñaanal aussi suñu boroom oyofal ko yan wi fi teg tànkam ak fi mu bëgg egg ak parti bi yépp ah yàlla na ko fa suñu boroom yóbbu ah, di aussi walbatiku di nuyu suma kóllëre suma xarit suma complice Sëriñ Lamin Njaay di ko jaajëfal bu baax ah di nuyu suma jigéen soxna Amina di ko jox wàcc waayam di ko nuyu bu baax di nuyu sëñ Moodu sëñ Moodu ñu lay ziyaare bu baax a baax a baax ah di nuyu aussi suñu auditeurs yi ak suñu auditrices yi ñuy déglu di leen ñaanal ku nekk fa nga nekk rek yàlla nga am jàmm ndax jàmm ci la lépp xëj soxna Fatou maa bu baax. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Lamine ñu ngi lay fay di rafetlu sa teewaay ci plateau bi. mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM. première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko bëgg nan ngay def dangay télécharger rajo bi via Play Store wala App Store wa ilaa nga dem YouTube tapé sunu kër FM bépp émission buñ fa def diñ ko am lëkkaloo ak Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange du parti en construction président Abdoulaye Fall jiite information nan 77 533 39 00 77 533 39 00 ñoo en un plateau sur notre FM ci une émission ëttu bu sey ak suñu ay invité ci xarit ci néegu sëy xaritoo ci néegu sëy ñu ngi am nag ci wet gi suñu consultant sëñ Mamadou Ndaw sëñ Mamadou Ndaw xaritoo ci biir néegu sëy waxtaan nañ ci pàcc bu njëkk bi mu di lan la mën a indi ci diggante jëkkër ak jabar xarit bi nga xam ne jëkkër ak jabar la fekk ñu toog mu xaritoo moo xam muy jëkkër ji moo xam muy jabar ji ñu waxtaanoon ci bii paase li muy indi maanaam mën na indi ay jafe-jafe comme mën na indi ay bànneex ñi defoon bànneex bi waaye bi ci gën dañ ne woon bu xarit nekkee jëkkër walla xarit nekk jabar boobu mooy bi gën sëñ Mamadou Ndaw ma lay nuyu di la wax yow tey suñ fas yéenee waxtaan jafe-jafe yi mu war a jur ak suñu ay invité lan nga ñuy xelaat jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw ñi ngi lay fay lu bëree bëri suñu consultant di la jaa jaajëfal ci teewlu bi ma jàkkaarloo nag ak soxna Aminata Seck di la wax soxna Aminata mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax a baax soxna Aminata. bu ñuy waxtaanee tey xaritoo ci biir néegu sëy ma lay laaj jigéen bi nga xam ne amul jëkkër am xaritam bu góor mu am jafe-jafe lool ak jabaram moom mooy confident soxna Aminata ma lay laaj loolu ndax relation boobu dana yomb walla dana jafe waaw bàjjen Fatou ñu lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp tey nag euh, sujet bi mu nekk sujet boo xamante ne dafa xaw a délicat tuuti ndax xaritoo moom euh, ci fànn yëpp il faut mu am nu ko nit ñi di gisee il faut mu am euh, nu muy basé woo ndax xarit dafa doy waar ci li nga ma laaj nag maanaam jigéen ji nga xamante ne amul jëkkër mu am xaritam boo xamante ne mi ngi ci néegu sëy loolu dina xaw a jafe ci ñaari pàcc ndax boo jëlee euh, benn pàcc bi mooy par exemple bu fekkente ne jëkkër ji mooy xaritam ça dépend ci seen comportement ak ci comportement jëkkër ji ak jabar ji parce que jëkkër ji am na nu muy comporté woo ak xarit bi jabar ji dina dem ba fiiraange dina si dugg bu ci fiiraange duggee problème mooy daal di ñëw donc foofu benn benn point la beneen point bi it bu fekkente ne ñaari jigéen ñi ñoo nekk xarit boobu it beneen affaire lay doon parce que ku jigéen kiy sëy mën nay wax lépp lu mu xam ci biir néegu sëyam ak euh, lu mu bëgg ñu conseiller ko ci biir néegu sëyam mu koy waxtaanee xaritam euh, nit nag dafa dëng nit dafa lëndam bu fekkente ne xarit bu jub la dina ko conseil te yàlla rekk tax nekk xaritam te yàlla rekk tax bëgg sëyu xaritam boobu aboutir ak quelque chose de positif te yàlla rekk tax bu boobaa du ci am xel ñaar dina ko conseiller lu baax dina ko def loolu baax waaye bu fekkente ne nag dafa nekk jigéen ñi nga xamante ne dañuy xoolee benn bët seeni xarit maanaam bu dee xarit ba sincèreul dina am nu mu koy conseiller loo xamante ni bu doon te moom la du ko def te bu boobaa xaritam boobu muy jàppane xaritam la mën naa am problème ci sëyam ndax day foog ne ma ngi koy jàppale fekk na jàppalewu ko wante xarit dëggantaan am na ci diggante góor ak jigéen bi nga xamante ne sëyuñu ñu nekk ay xarit te yàlla rek tax loolu am na faatu yaakaar naa ne euh, am na ñoo xam déglu naa ustaas bi doon wax euh, ci émission bi passé ne am na 30 pour peut-être 30% pour cent amna ci sax au moins 20% yo xamantane xarito bu sincère lay doon machallah auditeur auditrice sunu keur FM ñu ngi djéggelu ci dog-dog bi problème technique moko waral ñu ci djéggelu bu baaxa baax ma wëlbatiku nak jakarlo ak seigne Modou sen seigne Modou sen jëkkër ak jabar ji nga xamne dañu am jafé-jafé ci seen néegu sey jëkkër ji am xarit bu jigéen célibataire jabar ji am xarit bu goor célibataire mu war leen a lan moo leen ci mën a fekk ci sa gis-gis jërëjëf soxna Aminata tontu bi leer na mën na jur lu baax comme mën na jur safaan ba ci ni nga ko waxee may wëlbateku nag di laaj sëñ Lamine Ndiaye jëkkër ak jabar ju am jafe-jafe ci seen néegu sëy jëkkër ji am xarit bu jigéen célibataire mu di ko xelal walla mu di ko dëfal walla jabar ji am xarit bu góor salibateer mu di ko xelal walla mu di ko jëfal di ko dëfal lan moo leen ci mun a fekk sëñ Lamine Ndiaye jërëjëf sëñ Modou mu wëlbatiku nag jekkaarloo ak soxna Aminata Seck soxna Aminata yan jafe-jafe moo mën a fekk sëykat bi am xaritu célibataire ci néegu sëyam asalaamaaleykum wa waaw soxna Fatou ñu ngi lay nuyu di la ziara di rafetlu réponse yi nga xam ne jaar na fi yëpp yàlla question bu am solo nga laaj muy góor jigéen góor kii am jafe-jafe ak euh, soxnaam ci néegu seem am xarit bu jigéen bu koy dalal lan moo ci sama xalaat sama xalaat mooy li islaam xalaat rek xaritu góor ak jigéen moo amut fenn islaam li mu ci wax moom mooy yàlla mi ñu gën a xam wax ne laa taqrabu zina bu laal bu du te bul jege kon dafa mel ni xàll ak ak mboob rek daay man xalab mboob moom bu ñu woo rek lu ñu bëggul mën na ci am defe naa ne képp koo xam ne yaa ngi ci néegu sëy rek nekkee ku góor nga soxna moo daay man moo war a nekk sa xarit nekkee jigéen nga daay man sa borom kër moo war nekk sa xarit te daay man sax moom ki nga xamante ni jigéen la loolu loolu moom la gën a war kon sama gis-gis loolu rek la ci mooy xaritu góor gi jigéen moom islam da koo dàkk ndaay mën a wut fenn waaw madame Lo dégg nañu euh, laaj bi jafe-jafe ji ki nga xamante ne mooy sëy mën a am gannaaw bi mu amee xarit bi nga xamante ne célibataire la bëri na bëriwul ndax bi ci gën a am importance mooy ki nga xamante ne euh, sëyul jëkkër laajul doom jooyul kooku ab sac bu vide la rek fu ko neex mën na koo gàddu dem waaye ki nga xamante ne day sëy dafay am ay responsabilité waxuma sax bu dépassé jëkkër ji ay responsabilité wu foyer femme de foyer pas femme au foyer femme de foyer kilifay kër bu ñu nee kilifay kër nag ñu bari dañuy fane góor gi rek moo nekk kilifa déedéet jigéen ji nga xamante ne mooy gérer kër gi ci biir kër gi moom tamit euh, borom kër la ci këram kon donc bu xaritoowee ak ab célibataire bu fekkente ne xarit ba sincèreul te ba ma ko commencé di wax bu dee xarit ba sincèreul ku jigéen ki mën na koo dugal ci ay toxi doona yu bari toxi doona yi nag day commencé benn par benn benn par benn comme escalier escalier mën nga def lii tey loo xamante ne wormaandul ak sa sëy bu subaa nga yéegaat beneen escalier defaat leneen di defaat leneen ba dangay dem ba sëy bi dootul mënati contenir euh, def def yooyu yep ça fait que ce qui fait que bu ñu tollee foofu moom hmm, rek moo ciy mën a jàpp rek moo ciy mën a jàpp sëy continuer sinon bi ci gën probable mooy tas te tas nag moom mara day taali yal ci yàlla musal tas bi mooy ñëw bu ko defee nag nga daal di delluwaat tolloo ak sa xarit bi nga célibataire la même pied d'égalité wala sax yalla dal di def sax mom mu amat jëkkër mom mu am jëkkër bàyyi la yow nga nekk célibataire bu boba yow nga perte nit dal su amé borom kër yor kër yor ay njabot dafa wara xamné ki ne kii day sëy par yenn saa nga dégg kenn ben célibataire nak bo xamante day am la tête sur les épaules pas les épaules sur la tête mom dana nan carrément pan sama xarit bu amé jëkkër sama dem-dem ak moom dootul bareeti ndaxte bëgguma suba dara am sax ñu ne ki nga xamante ne amul jëkkër moom la topp maa ngi dégg euh, sëriñ bi génn léegi mu wax mu ne laa takkara bugina jigéen ax góor bu ñu sëyulee war ñu nekk xarit déedéet sama jàng bariwul de gaa war naa jàngaat waaye laa takkara bugina boobu fañ ko waxee ak bu xarit ba defe naa ne bokkul ndax mën ngeen nekk ay xarit te doo leen egg fa ñuy teree fa ñu naanee laa takkara boojina parce que xarit du rek da ngeen di xaritoo rek da ngeen war a def lu bon wala da ngeen xaritoo rek da ngeen war a wax lu bon déedéet je pense que euh, xarit c'est c'est c'est une bonne communication toute personne qui qui qui arrive à à à communiquer bien parfaitement et dans la solidarité dans dans dans dans dans euh, ci discipline ah ci ci ci ci kersa ci sutura ñooñu mën nañ nekk ay xarit yu dëgg parce que la communication c'est la base de pas seulement ci jëkkër ak jabar mais ci diggante ñaari xarit yi nga xamante ne ki some problème bu ñëwee wax mu ko ma trouver ko solution wala ma wax ko foo xamante ne bu fa jaaree dina daal saafaral problème am defe kooku communication la te buy continuer di am mën na dem ba nekk xarit bu dëggu waa bàjjan faatu. allo oui. asalaamaaleykum suñu kër FM maa ngi leen di ziar di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay la présentatrice Fatou Lo man la Sidi Fall Cap Sénégal naataange jaxaay maa ngi lay ziar di la wax ne maa ngi suivre sa émission am na solo macha allah li ngeen di def amal na njëriñ askan wi macha allah ñu ngi am mbégte. di leen déglu jërëjëf. am na ku nekk ci ligne bi xaaral ma jël ko allo allo. allo salaamaaleykum waaw sax na soxna Fatou sa question am na solo waaye sa question compliqué na ndax euh, sëy déjà dafa nekk loo xam ne. lu doy la li nga xam ne ñaan ñu ko sekk rek wax dëgg yàlla ñoo xam ne ci biir gis nga relation boobu soo demee ba war a am ko ciy dugal ndax sa xarit la wala ndax leneen lu mu mun a doon la féetee ci yow ah koo xool xoolaat ko bu baax lay doon wax dëgg yàlla te ñëpp xam nañ ne jamono. dafa tëradi te doomu aadama dafa lëndëm li ciy leer yëpp ci kanam gi la sànq yaa ngi koy wax sa biir wax bañ weex na waaye dereeta ko lal te wooyu biir du neex aw kon dafay jafe trop ci jamono ji ñu toll ndax ràññee nit ki la bëgg ak ki lay bëgg bëggul parce que neexu la ràññee bi ci topp mooy misaal bi mun naa bañ a sori man ku nekk sa bopp da lay doy misaal donc donc tey man sama soxna am xarit ma waxee ko noonu bu góor léeg-léeg mu tàgg ma ne ma maa ngi dem sama xarit léeg xaritam bu ñëw fekk ma sama kër ne ma ne xaritam bu jigéen lay seet muy sama soxna soxna Fatloo mën na nekk mënul nekk mën na nekk ci kaw yow sa soxna boobu nga am ci yow si moom confiance boo xam ne dara du ko dindi dara du ko changé si àddina jusqu'à preuve du contraire waaye loolu yombatul de man ma am xarit bu jigéen léeg mu ñëw seet si ma léeg ma tàgg sama soxna ne ko maa ngi seeti sama xarit bu jigéen mën naa nekk mënul nekk encore une fois mën naa nekk ci kaw moom mu am ci man confiance boo xam ne dara du ko dindi jusqu'à preuve du contraire vice versa waaye ñu wax ko ñu ñàkk koo wax la plupart su amee si relation soit mu du neex soxna si waaye du mën a du ko a wane du ko mën a wax parce que li muy sàmm la est ce que su ma ko waxee du yàq dara est ce que su ma ko waxee du ma ñàkk dara soit mu mu du neex borom kër gi la même chose mu ne man lii neexuma waaye su ma ko waxee mu jóg ko est ce que du am lu muy yàq est ce que du ma ci mën a dara loo xam ne bëgguma war nekk kon mu nekk loo xam dafa dafa dafa neexu la lijjanti soxna farlo, neexu la lijjanti trop. waaye daal li gën a wóor gën a dal xel wax dëgg yàlla sëy daal su dee dëgg la te mbëggeel lal ko soxna si borom këram war na ko mën a day xarit waaye borom kër gi soxnaam war na ko mën a day xarit ndax gis nga mbëggeel li yàlla wàccee lu kenn xamut loo xam ne wax dëgg yàlla ki koy sentir ki mu nekk ci xolam ak ci xelam mu koy dund di ko sentir moom moo xam ban dayoo la am chef yi kon loolu du caaxaan wax dëgg yàlla su dee sëy la te dëgg la bëggal lal ko encore une fois ñu war a sàmm tey ak ëllëg pour toute une vie entière ñaari couple yi daal seen bopp war na leen doy xarit maa ngi lay déglu asalaamaaleykum ba ci kanam jërëjëf allo wii sëñ Sidi ñu ngi lay fay sëñ Sidi naka nga def yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci ëtt néegu sëy waaw sëñ Sidi ma lay laaj jëkkër ak jabar ji nga xamante ne dañu nekk ci ay problème te muy jëkkër bi walla muy jabar ji ñu am xaritu célibataire kooku war leen a dëfal ndax yan jafe-jafe la mën a indi ci biir couple bi sëñ Sidi allo. Ah, asalaamualeykum waa soxna faatu maa ngi lay ziyaare waat bu baax di xaw a jéglu jéglu nag ci problème technique bi ñu amoon eh, di ci di ci jéglu bu baax a baax a baax mais quand même euh, parfois mënu ci ñàkk ça

boo diggantee xarit euh, góor ak jigéen ci biir néegu sëy dafa am loo xam ne dañ ci war di bàyyi xel d'abord mooy tey ñaar ñi nga xam ne yàlla boole ne leen ñuy sëy ku góor ki xam na jabar euh, xam na jabaram ku jigéen ki xam na jëkkëram ku nekk am xam nga sa sa bopp ku nekk tamit xam nga sa moroom loolu am na déjà mais nag loolu lépp dafa am leneen lu ko lal ci suuf mooy lan mooy coloré gi nga xam ne ak confiance bi nga xam ne tey mi ngi ci suuf ndax nit ki tamit booy sëy ak moom dafa am minimum de confiance boo xam ne ku nekk war nga ko jox sa morom di à ku nekk xam nga sa morom de quoi et il est capable loolu bu amee ñaar yooyu bu amee yow di nga mën a xam sa jëkkër de quoi il est capable buy wax problème mu xarit ci biti wala yow tey sa jabar eh, de quoi elle est buy wax xaritoo ci biir néegu sëyam ku nekk xam nga sa bopp foofu moo tax am na sëñ Sidi wax na ko mënuñu ko exclure ne amul am na mais dafa néew mais am na ci biir néegu sëy émission bi passé waxtaan naa ci tuuti am na lu ma ci waxoon xëy na nag nañ koy jëfe ak ña ko séq xëy na foofu moo xaw a am coppeeku mais am na ñoo xam ne dañ ci daan teg seen tànk di ko dox ba mu mat mu rafet trop ba ay teraanga ba ay lu ne di ci génn ci diggante yi xëy na loolu moo jafe mais am na ba am na am na ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla dañuy jàpp nit kóllëre moo tax ñu di ko jàpp xooluñu ci moom dara moo tax il faut aussi soxna faatu euh, ñu bañ a exclure carrément c'est impossible mënul nek non mon nek ça dépend rek ci nit parce que wolof njaay dafa ne ndox se fam fam fam famuy ta bo ba légui ya nga fa waaw kon ñi doon baax ñi ngi baax ba légui ñu doon xey di dox diko wax diko ba légui amna dafa nak dafa ndax jamono mo am ku gu am waaw soxna Fatou bëggoon ajouter te di xaw a jéglu tuuti rek ci problème technique bi ñu amoon jërëjëf. waaw soxna Aminata Seck dafa am loo bëgg a yokk d'accord ñu ngi lay déglu. mu nekkoon sëñ Sidi Fall ci ligne bi jërëjëf soxna Aminata Seck waxtaan bi set na lu nekk la tey li muy jur ci jafe-jafe. bari na torop comme ni nga ko waxee noonu ma wëlbateku nag laaj suñu consultant bi sëñ Mamadou Ndaw lan ngay conseiller jëkkër ak jabar yi am problème ci seen sëy te ko ci nekk am xaritu célibataire <laughs> jërëjëf soxna Aminata dégg nañ la mu wëlbateeku nag soxna Aminata bàyyi ma tuuti ma wax ak sëñ Lamine Ndiaye laaj ko sëñ Lamine euh, yow comme ni ko sëñ moom Mamadou Ndaw waxee suñu consultant bi am na ci ñoo xamante ne ay xaritu célibataire lañu am te dañuy indi solution loolu ànd nga ci. waaw Fatou ma ma ma ñëwaat rek lu ma ci doon bëgg a yokk ci lu tuuti ci euh, Sidi Fall lu mu wax Sidi ñoo ngi lay jaajëfal. wante dafa mel ne dañu war a fàtte nag ne que xarit euh, mën na nekk aussi si diggante euh, xarit jëkkër ak jabar wante tamit par yenn saa yi ñu gis ci couple yoo xamante ne duñu xaritoo duñu wax y a communication gis nga ku góor ki fi muy dem di doxaani sax jigéen ji nga xamante ne célibataire ba muy labati sax kooku la gën a mën a waxtaanal ki nga xamante ne mooy jabaram moo tax par yenn saay problème yu bëri di ci am loolu day dem ba day pousser jabar ji ci boppam moom it mu uti xarit ndax bu fekkente ne jëkkër ji su wàccee du waxtaan ak moom du ñu jokkoo du ñu communiquer moom gel ba muy doxaan kooku mooy xaritam kooku la mën a waxtaanal yenn waxtaan yi jabar ji tamit mën na obligé mu dem uti ji beneen xaritam boo xamante ne moom it moom lay waxtaanal ay problème mën a xarit bu góor mais xarit bu jigéen mën na nekk euh, ami d'enfance mën na nekk sëram mën na nekk yaayam mën na nekk collègue de travail am boo xamante ne dañu yàgg mën na nekk euh, ku mu mënti nekk koo xamante ne rek elle va se sentir bien pour mieux faire sortir ce qu'elle est en train de vivre dans son couple. jërëjëf sëñ Lamine ngay déglu nañ la tont bi allo dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo allo. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di jéggalu aussi ci sànq ci problème micro bi ñu amoon soxna si soxna Fatou man de nanguwuma li Mamadou Ndaw wax daal nanguwuma ko waaw nanguwuma nanguwuma parce que tam eh, jigéen dafa am fu mu war a yem. ci diggante mook jëkkëram jigéen xaritam mooy jëkkëram loolu répété nañ ko ay yoon ay yoon ak loo munti am problème boo munti am sëy bañ lay muñ loo sëy parce que sëy sukkër seen ci ci kaw li li des yépp lu metti la parce que gor a koy def sëy ñaari gor a koy def te ñaari gor il faut muñ am il faut ñuy muñalante yow mi sëy si soo buggee saa yow meree ut xarit boo mun a waxal ak ko munta waxal loolu muñ nekkatu fa li soxna si wax nangu naa ko nga am xarit boo xam ne mu ngi ci sëyam mu ngeeg foyam mu ngeeg tout c'est vrai mais ñaareel xarit rek moo la mun a viriloo xarit moo la mun a viriloo mun nga ne bon lu ma dëgër dëgër naa et tout mais su dee yàgg sa jëkkër rek mun na mer mais mun na ñëwaat parce que góor tam ñun ñëpp a yem góor su amee jàmm fi mu nekk ak lu mu dem dem xam na ni lii moo gën ci moom day ñëwaat waaw du ma ne góor ñëpp a yem mais ñun ñëpp moom ci ay ñu si bari ci ay conneries rek lañ nekk man ak keneen a si am mais nag xam na ñu lu baax. xam nañu aussi di gën ci ñun ki romb kër yépp ñëw tànn la indi la këram <laughs> kooku su la nee bëggu walla nit di la gëmloo leneen du ma nangu il faut ñu góorgóorlu ci sëy yi nañu góorgóorlu nañu góorlu maa ngi guddal soxna si wax na tout à l'heure da wax ak sa jabar dem di wax ak sa copine ci àll ba sa jabar su aussi su amul ku mu waxal dem wax ak copine am d'accord na sa jabar da nga war da wax da ngay war a waxtaan ak moom ngeen di diisoo di wax ak yooyu mais naxante góor mun na ko def mais jigéen mun na ko def jigéen jigéen moo yor kër góor ñun euh, da ngay dégg woykat bi sa di wax baay bàyyi ñépp la mais jigéen jigéen mooy jur ku ne il faut ñu xamaat loolu suñu yaay yi suñu sœur suñu jabar yi ki la bëgg bu indi la këram bañu la merci. allo jërëjëf yaay Maimouna Niang depuis yi ñu ngi am mbégte ak kontaante ci sa dugg si. ci biir émission bi ma lay laaj nag jëkkër ak jabar ji nga xam ne ñoo ngi ci ay problème ci seen néegu sëy te ku ci nekk am xaritu célibataire yaay may mun a lan moo leen ci mun a fekk asalaamaaleykum Mame faatu couple boobu jafe-jafe bu rëy mën na cee juddu ndax problème bu amee sa diggante ak sa borom kër Fatou toogal nga gérer ko sa bopp dalal ànd ak teey mu di sa boroom kër dal ànd ak teey nga nax sa boroom kër sukkal ka raamal ka waxtaan ak moom waxtaanu jamono kenn bañ a xam sa problème bu ci dugal góor bu ci dugal jigéen sëy daal boo bëggee mu ne faatu nanga sa jëkkër ne nekk sa xarit nga nekk xaritam la tax ngay nekk xaritam yaa koy liggéey ndax nag ñun jigéen danoo war a liggéey liggéey mooy tax ñu am baax nag nañu ko ne góorgóorlu ci sëy yi nag bu ñu góorgóorlu ci sëy yi rek dinañ dem te dadu tee da nga nee xalaate moo roob sëriñ nag faatu nee xalaate roob man soxna May mu ne ñang Italie maa ngi leen di nuyu di leen ziar Cap Sénégal naataange gépp di leen wax ne seen émission bi am na solo macha allah ñoo ngi am mbégte mu rëy ci Cap Sénégal naataange ak képp koo xamante ne yaa ngi déglu émission bi Fatou fi nga teg sa tànk foofu la kontaan nañu. jërëjëf yaay Maymuna sa dugg si am na solo lool am na solo yal na ñëpp couple yëpp mel ni yéen te yàlla may leen fan bu gudd ak wér mu wëlbatiku nag jàkkaarlo ak sëñ Lamine Ndiaye ma koy laaj sëñ Lamine liñ ñu ma cëralee woon ci waxtu jeex na lan ngay tàggoo suñu auditeur ak suñu auditrice suñu Kër FM. waa soxna si ñu ngi lay siyaare bu baax. E, di tàggu mbokk jullit yi mbokku taalibe yi e, di leen di wax nag e, lu si jub nañu xam ne suñu boroma lu si dëng ñu xam ne suñu mat di dong moo ñu jàpp di leen di ñaanal dimanche su jàmm di wax merci encore une fois merci ma ñëwaat rek man day wax dëgg yàlla yaay may mun a li ma waxoon démb rek lay waxaat tey man sama jëkkër mooy sama xarit mooy sama soppi mooy sama lépp waaw sama diggante sama borom kër moom ba fi may toog ak yow di wax yow macha allah tubaab muy sama xarit loolu nag may xaritam loolu nag wax dëgg yàlla ba téléphone sax ñoo ko bokk nag kon ko wax doo ko gëm ñoo bokk téléphone macha allah. di la sant di la gërëm di sant ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi ci panel bi ñi ngi ci déglu ci rajo bi ñuy jaajëfal it ñi nga xamante ne ñoom lañu àndaloon ci waxtaan bi yaakaar ne waxtaan bi rek am na njariñ ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi koy déglu eh, nañu baal àq bu fekkente ne am na ci lenn loo xamante ne dëng-dëng la comme ni ko sëñ Lamine waxee ñu leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm di leen eh, ñaanal yàlla nañu yàlla dolli sutura dolli ko ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ci àdduna bi merci beaucoup jërëjëf bàjjan Fatou. jërëjëf sëñ Lamine Ndiaye kontaan nañ torop ci dalal la ci suñu plateau soxna Aminata Seck lan ngay tàggoo suñu auditeur ak suñu auditrice ginnaaw waxtu bi xoj nañu. waa soxna Fatou ñu ngi lay remercier bu baax ci émission bi ak invitation bi xam naa dañ koy tënk rek. bon bu ñaari question la bu njëkk bi maa ngi nuyu de passage suma suma xarit euh, Lamine ci position ak ni mu waxtaanee ak li wax bon moom àndu ci d'accord c'est bien boo noonu la moo tax sax tax àdduna bi tamit euh, ku nekk ak gis-gisam mais góor ci biir sëy yow dangay ubbil bunt sa jabar mu ñeme la jege la e ngay diisoog moom di waxtaan ak moom yow yaa koy def xarit yow mi góor yaa koy def xarit moom mu walbatiku def la xarit comme saa communication bi dafa war a mën a jàll nga ubbil ko sa bopp ñemeel ko sa bopp di ko jàppale di ko dimbale am yër mënde yow yaay xaritam d'abord comme sa boo liggéey problème bu amee tamit du ko mën a wuti fenn parce que yow yaay léppam mais bu dee yow tey yow muy góor li nga war a def yépp defoo ci dara dara matu ci mais c'est normal bu bu bu bu discussion amee mu dem xool feneen foo xam ne tey dina fa mën a dem di waxtaan mais demul pour wuti leneen dafa dem pour xëy na peut-être am fa xalaat il faut aussi tamit ñu bàyyi xel loolu mooy li ma wax rek du ñëpp ñoo yem nag gis-gis yu bokkuñu. ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir sëy di def leneen loo xam ne lu ko sudul noonu tey du ay xarit sax waaw kon góor boo bëggee sa jabar nekk sa xarit danga koy jàppale danga koy dimbali da nga koy yërëm danga koy miinal sa bopp ba bu ëllëgee lu mënti am coow mun munta mën bañ a ñàkk ci biir cëy mais toujours dina xam ne yow yaay xaritam mu daw ñëwaat bon beneen bi mooy ñi nga xam ne tey yàlla def na tamit ñoom duggaguñu ci ah nañu jël ay leçons rek ci référence ci mag ñi waaw nañu jël ay référence rek ci mag ñi xam naa temps bi xat na mayuñu ko ñi ngi remercier auditeurs yi ak auditrices yëpp di remercier aussi suñu président ab Abdoulaye Fall soxna Fatou maa ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu sama naataange yu ma bokkaloon plateau bi yëpp di leen ñaanal jàmm yàlla defal ñu jàmm defal ko mbooleem jëlee. jërëjëf sëñ Mamadou Ndaw suñu consultant ci xalaat bu rafet bi. di jaajëfal it suñuy invité sëñ Lamine Ndiaye soxna Aminata sek sëñ Mamadou Sène ñi ñu bokkaloon plateau bi di am kontante it si ñuy jot a dugg ci ku ci mel ni sëñ Sidi Fall ak yaay may mun a ñang ñoo ngi leen di jaajëfal mbokki auditeur mbokki auditrice ñu leen di wax rek ne duñ ci yokk lenn lu dul ni ko beela seen di waxee góor dafa bëgg këru dalal xel ak këru noflaay may ñaax sama mbokk jigéen ñi ñi am jëkkër nañu ànd ci boobu yóbbu seen jëkkër yi foofu di wax célibataire yi amagul yal na leen yàlla may te bu leen mayee it ngeen yóbbu ko foofu amin ya rabbi soxna Aminata jërëjëf ma wëlbateku nag jàkkaarloo ak suñu consultant sëñ Mamadou Ndao sëñ Mamadou Ndaw lan ngay dénku tey couple yi nga xamante ne am nañ jaar-jaar yi ak ñi nga xamante ne jaaraguñu ci ci suñu émission bi mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di leen di wax ne li ñu joxoon ci ay waxtu jeex na ñuy fàttali rekk mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM premier radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko bëgg nan ngay def da ngay dem Play Store nga télécharger wa ila App Store wala nga dem ci YouTube bi nga sunu FM bépp émission bu la rëcc rek ding ko am lëkkaloo ak Cap Sénégal Natangé la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangé bi ñu di parti en construction président Abdoulaye Fall jiite que vous voulez bëgg nan ngay def da 77 533 39 00 77 533 39 00 mbokk yi ñu doon déglu ñu ngi di jox dig dajé ba benen dimanche ci une émission ëttu néegu sëy ci sen plateau sunu kër FM. ku bëgg a xam nag tey nu wanant du mujjee ak ay gëtam fekk ñu ci panelu sunu kër FM ñu yeggali waxtaan bi jër ngeen jëf